benn focus ci article 13 article 13 nag mooy article bi nga xam ne day wax lépp luy koomu jigéen day wax lépp luy jigéen ñi nekk ci mbay mi day wax jigéen ñi nekk ci suuf si day wax lépp loo xam ne rek dafa concerné jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci secteur informel bi aussi donc article 13 boobu tey lool la ñuy waxtaanee ñu boole waale ci lépp loo xam ne day nekk ay boddi yoo xam ne dañ koy def jigéen ci seen wàllu liggéeykaay ñu wax aussi mbirum pension de réversion bi mooy jigéen ñi xam dañuy nekk ci euh, état mbaa ñu nekk ci euh, euh, privé bi di liggéey te bu bu ñu génnee àdduna pension bi am nuñ koy doxalee donc tey looloo taxoon ñu nekk fii ak sunu naataango yi ak waa société civile ak ñi nga xam ne la concerné mooy ñëpp ñi nga xam ne c'est c'est les muy waa fonction publique muy waa pension muy waa IPRES muy waa caisse de sécurité sociale muy ñëpp ñi nga xam ne rek seen xel dafa màcc ci wàllu droit économique et sociaux